waaw xam nga jëf yu ni mel suñu defee lu méngoog jëf ja suñu ko déggee benn yoon fala yem te wa fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab wa fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab bu doon ko def ngeen def ko da dund dund bu stable ñëpp ay sàcc lañ rek ñoom ñëpp ay yem ki feeñ ki feeñagul parce que nit bu jàngul diini xamul diini xamul yàlla xamul yonent bi xamul alquran xamul euh, euh, nu mu tudd euh, déedéet diini xam mais kooku kooku bàyyi ma la bàyyi ma la nu dañoo jàng ba pare te liñ jàng du diine dañu jàng ay nax rek ay trian rek ay tappale rek tudd ma kenn kenn du ko tudd parce que boo tuddee kenn am nga koo bàyyi da dangay généraliser képp ko jël xaalisu réew mi ñu àtte la ak ñu bañ laa àtte bu bés ñëwee danga nga ko fay alaaxira amul yiw bu toll ni xaalis amu fa waaye soo jëlee sunu alal réew mee ko moom nga jël ko nëbb ko jël ko sàcc ko su yowmal qiyaamee dañuy jël bàkkaaru ñi moom alal ji yan la ko loo fay am bàkkaar su ma la tus ëllu na yow ma isin ani naayim yàlla nee na boo légéey damay laaj xéewal kenn ku ne li ma la jox ak foo ko jëleeg noo ko fa amee foo ko dugalaat mais jël nit mu sàcc lu toll ni ay milliards wala mu sàcc ab dërëm wala mu sàcc ñaar dërëm ak milliards yëpp ñoo yem nga sàcc ko ba pare ñu yóbbu la parki tëj la fa ñaari fan ñetti fan ñeenti fan ñu ni génn faraas fa lay jaar kon ñi àtte am nañ tuuma ñi àtte am nañ tuuma parce que waruñ génn dañoo war a fay alal ji lii du lu nuy waxtaanee waxtaanee mooy luy loo xam ne euh, suñu diggante rek la mais loo xam ne yow mi ko def sénégalais yi nga ko def xaalisu réew mi nga ko def sunu xaalis nga jël def ko lool dañ laa war a àtte ku sàcc dañuy dagg sa loxo. man sariya laay wax de man waxuma li ñuy wax sariya laay wax de sariya laay wax mille quatre cent francs su ko ëppee rek su ko su yeggee mille quatre cent jëm kaw dañuy dagg sa loxo ndey joor tipp dañ koy dagg boo sàccaatee ñu dagg tànk bii boo sàccaatee ñu dagg loxo bii boo sàccaatee ñu dagg tànk bi soo sàccaatee ñu duma la tëj la sariya laay wax waxuma ay tappale man mais ay nit jël xaalisu jàmbur noosee ko euh, ñu jël leen yóbbu leen euh, parking euh, dara du ci topp jeex na fu ne nga di ko fa dégg partout këppoo nañ kees te am na ñuñ fa teg ñoo xam ni pour ñu saytu xaalis bi ñu di leen fay ñoom waaye léegi ñoom ana ñu doon def ana luñ doon def kon ci fii lañ bokk donc loolu du yoon ku ku mu mën a doon laa wax ku mu mën a doon li dalee dërëm ñaar dërëm ñetti dërëm ñeenti dërëm ba ci junni ba ci ñaar junni ba ci milliard ak loo mën a sàcc rek nañ la àtte ci yoon tegle ci yoon àtte la su matee mille jëm kaw nañuy dagg sa loxo su matul mille dañ lay duma yar la tëj la ba bu ëllëgee kenn du ko def mais ñëpp sàcc lañ ñëpp sàcc li ñëpp a yem tout le monde ñoo yem ku dégg rek koo dégg rek mu naan wuy euh, nangam nangam ah, affaire yi garaawul ca la bokk dama ne ñëpp ñëpp daa am ñu feeñ am ñu feeñagul am na ñoo xam ne sax euh, feeñ nañu waaye ci benn côté lañ feeñee ba ñu feeñee foofu dañoo dara jox leen mosal leen dara ñu bàyyi leen noonu sàcc nag bu fekkee ne yàlla dafa def dañ ne boroom dëkk suy rey xale di rey di rekk lekk dem la nag boroom dëkk di rey di lekk di rey di lekk nga fanaan si fa gis ne rey na doomam sooy boo bu guddee nga yooru suy xëy yaa ci topp ndax ku rey doomam jàmbur du mat a wax nañu maandu àdduna jarul lenn li àdduna jaru lenn li àdduna jarul lenn lii sàcc fii tappale fee dugal fële jaru ko dundal dund bu stable xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëlbeenu dundam ni mu métti mujjug dundam aj ji mu aj juróom benn fukki gëléem ak ñett la rendi juróom benn fukki gëléem ñett ci koo xam ne demoon nga ba nga xam ni amuloo lekk montagne yi di wax ne la dañoo bëgg a nekk jamaa baa ñu nekk or nga jaay ñu nga ne leen ëpp naa def nga dem ba sa aj nga ciy def loolu muñ ku muñ muñ ku muñ eh, ku muñ waaye yàkkamte sa àdduna ñu fal la en tant directeur ci li ci gën a soof en tant que DG nga nekk ko di këppoo kees loolu loolu loolu dafa dafa ruslu yow wane nga ne sa njàng méngoowul ak sa jikko te njàng bu méngoowul ak jikko dañuy arrêté njàng ma stage boo gisee ñu koy def nga ñëw fii ñu ne la da def stage dañuy xool diplôme bi nga am ak jikko bi nga yor ndax benn la soo mënee sa métier dëgg te amoo jikko bu méngoog métier mi kenn du la jël bu di tubaab du la jël parce que ñoom seen alal duñ ko yàq dañoo xam niñ ko amee dañ koy sonn doog ko am bu di fii da ngay tàppale doog ko am da ngay xool li ñuy waxtaane man ak Ndoye rek eh, eh, lim may wax rek yow yow yaa ngi ñëw ñu fal la tey ngay may ay junni may ay milliards tabax sa kër ci salaire loolu salaire mënu ko salaire mënu ko salaire mënu ko yow buñ la falee yaa ngi toll ci ñaar fukki junni ñu fal la nga yaa ngi tollu ci juróom fukki junni yamal ci juróom fukki junni yi ngay fayee ko xaalis bi ñu la jox nga def ko fi ñu la sant xaalis bi nga moom nga def ko fi la neex loolu mooy dëgg waaye buñ la falee nga def lu la neex buñ la follee dootoo man dara kon yaa ngi doon dundi alali alalu réew mi alalu réew mi la nañ leen ko sàmm nañ leen topp su fekkee ni li nu wax am na nañ ko génne lañu lekkul nañ ko génne lañu lekk ñu topp leen tëj leen buñ daggul seen loxo nañ leen tëj def leen travaux forcés mais c'est ça amul leneen amul leneen amul leneen ku ci wax leneen yaa xam sa affaire la mais amul leneen waaw. macha allah yow sax euh, ci sa biir wax yaa ngi ko dalee daanaka jàngale ci njàng mi. wala boog éducation bi nga xam ne mooy nekk ci ki nga xam ne moo war a seere alalu moomeel bi nga xam ni askan wi ñoo ko bokk est-ce que des fois dooy am jaaxle ci wala boog euh, ne ni ñu war a former suñuy ndaw ngir ñu mën a seere alal gi nga xam ne moomeelu ñëpp la fu ñu war a jaar dañ koy bàyyi. ña di forme ñoo leen gën a dëgg. jeex na ña di forme ñoo leen gën a dëng su fekkoon ne gis nga ko jub gis nga njàngale jàngale danga war a wut ku jub ku sell ku xam yoon billaahi wal kitaabi ñi ma jàngal ñépp kenn ñemewu leen fooye billaahi wal ñi ma jàngal ñëpp ñu jaar ci sama loxo par yi dama daan génn di jàngale bañ jullit sibaar sama benn bésu jàngale wallaahi wal quraan hakim wecc na ñetti at jubuma baaxuma selluma maanduwuma waaye danaa fexe ba xale yi jub mais defal jub mais yow nga bëgg a jàngal xale gën koo dëng xoolal déglu rek ma lay wax nga am atelier nga seen waa ji nga daw si ci ruq bi ne ma nii ma ne la patron bi daa génn wala patron bi dem na Dakar te patron baa ngi may dégg lii bu ci xale bi màggee su ubbee atelier lii lay def ti ma wax la leen concours yi nga gis xale yi di ko def ñi mën a jàng teg seen tànk ci njub duñ leen jël parce que lañ la nangu duñ ko def la ñuy bëgg ñu def ko duñ ko def ña nangu ñu teg leen yenn teg-teg yi ñu nangu ko ñooñ lañuy jël moo tax ñuy def tooxi doona yi mais bu ñu jëlee nit nañu seet sa diplôme ak sa jikko nañu seet sa diplôme ak sa jikko buñ ni diw mën na jàng nañ ko fal diw mën na leen muy mën a jàng du dara jikko mooy alal jikko mooy alal amoon nañ benn maire bu nekk Tiwaawoon ku wax Alaaji Njaga Njaay maire bu dara bu yéeme maire yi lay doxee ba këram soo ko ñaanee dara mu ni ah li ma am di lii la li ci des nag mairie bee ko moom sañu ma koo joxe ci loolu la dund ci la faatu moo taxit alhamdulilah yaakaar naa boo faatu na bu faatul nañ ma baal waaye Alaaji Njaga Njaay doxal na lool ci Tiwaawoon doxee doxee mairie ba ba sa kër te bëriwul wax liggéey rek maanaam pour nit boo ko bëggee jubal danga nga koy jox ko jub soo ko bëggee dëngal Mansour danga koy jox ko dëng nit nit a koy defar mais triant boo xam ne mu ngay muqi cigarette mu ngay tux fële mu ngay def lee mu ngi lay jàngal nga yor cigarette bi xoolal fii defal nii kooka booy pare di alku xale yi ñi leen di jàngal métier ñoo mënul métier mi walla buñ ko mënee dañoo saay saay dañoo saay saay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 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy te bu ñu nee góor ngóoraa tax